comme mag bi ak ni nga ko comme ni nga ko waxee noonu ni jeex na non jeexul maanaam moo ngi door a tàmbalee tey jii nii parce que tey euh, ndaw ñi dañu ñëwoon tey jokkoo ak Macky le président Macky Sall par rapport ak concept bi nga xamante ne mettre na ko en place muy jokkoo ak Macky tey mu bëggoon waxtaan ak ndaw yi sans filtre sans intermédiaire tey ñun aussi ñu def une très grande mobilisation avec de très fortes euh, doléances ñëw jébbal ko ko euh, pour mu mën si apporte ay solutions yi nga xamante ne tant sur le domaine euh, social tant sur le domaine de l'éducation tant sur le domaine de l'emploi de la formation tant sur le domaine culturel sportif ainsi de suite donc toutes ces commissions commission yooyu yëpp tey jii jot nañ ci liggéey indi ay doléances yi nga xamante ne par commission ñëw jébbal ko ko moom aussi si ci mbaaxam Euh, mu apporter si ay solution daar daar daar am na yi nga xamante ne tey euh, réglé na ko si saa si ne dans les plus brefs délais d'ici la semaine en début de semaine prochaine incha allah dinañ ko gis comme lu mel ni euh, ambulance bi lu mel ni tey corbillard bi ak yeneen yeneen yi nga xamante ne tey jël na ay engagement si emploi tamit jël na minimum emploi 200 emplois yi nga xamante ne jagleel na ko ndaw Médina yi donc je pense yooyu ay acquis yi nga xamante ne moom lañ doon xaar ci moom mais toujours est-il jeexul dañ koy def benn suivi à travers le C1 CRD bi nga xamante ne euh, à travers un CRD bi nga xamante ne tous les services et ministères yi concernés dinañ ñëw toog euh, ñu jébbalaat ñu euh, tegaat dossiers yi discuter waat si xool li nga xamante ne dans le moins et long terme nan lañ koy nan lañu koy mettre à disposition de la Médina donc si gàttal am nañ satisfaction si ndaje tey bi